mbokk internet yi safoo teewlu info 2S TV dal leen ak jàmm ci xibaar ñu wax ci lu soxal ab post boo xam ne kii di Pape Alé Niang nag daal dina ko amal ci page Facebook am muy del siwaat nag ci mbirum kiit di Ousmane Sonko rawatina nag jafe-jafe yi nga xamante ni mi ngi koy nemmeeku ak itam dal ak gëm-gëm bi ci am nag ba tax rek askanu Sénégal daal di ko dugal ci seeni xol rawatina nag jamono ci amoo bi nga xam ne. am nañu ko ci moom ak jafe-jafe wàllum politique bi nga xam ne itam moom Ousmane Sonko daal dina ko am li nga xam ne moom engagement ak cause commune bi nga xam ne itam am ko compréhension ak intérêt public bi nga xam ne daal ko jël rek transformer ko def ko nag intérêt personnel mom Pape Alé nak nag daal di xam mbir mi mel tax na nag ba kii Ousmane Sonko nag askanu Sénégal jox ko bopp waaye itam di jàppale ci fànn yëpp mu daal di ci moom nag mu xam le ak kii di Ousmane Sonko nag jiitalul intérêt boppam waaye nag li nga xam ne moom mooy intérêt askanu Sénégal daal di eh, jiital a eh, tax rek eh, ñëpp daal di daw wuuteli ko itam day gën a yokku li nga xam ne moom mooy confiance askan bi waaye itam décision yi nga xam ne mu ngi koy jël mu dem sax ba xam le ni kookee di Ousmane Sonko nekkul koo xam ne wàllum politique kese ko ñor waaye itam li nga xam ne moom mooy pratique démocratique yi nga xam ne a Sonko euh, mi ngi koy amal mu dem sax bay xamle ne euh, moom a Sonko euh, jàngale jàngalekat la maanaam éducateur ndax nag ci yenn yi nga xam ne mi ngi koy wone ndaw ñi nag daal di ci gis seeni bopp mu xamle ne histoire nag dina bàyyi turu Ousmane Sonko maanaam taarix turam nag dina des ci taarixu Sénégal ci jafe-jafe yi nga xam ne daal dina ko daj ci réewum Sénégal mu nekk nag ab poste boo xam ne moom la Pape Alé